Pape Makhtar sha allah li nga way neexna na ñepp begg neen wax deug yalla pa bu ñewon itam xamna mom waxuma ne dina dàq li de ma sha allah yow pa ben ngeen tabaarakallaahu yalla na barkel kon jotaay bi egsi neen foo xam itam du mën and ak yuuxu yi ak wax ju bari ji mooy ñu jotaay bi gannaaw ban taggee yonent bi wasallam ba xol toy di leen jox kilifa gi Cheikh Moustapha Cissé mu ngi jógee ba xadara ba ñëw ngir bis bi wax dëgg yàlla mu bëgg mu fàttali doomu aadama yi li leen di jëriñ incha allah suñ jógee foofu nag incha allah dinañ jox kàddu ngërmande yi suñ papa Ousseynou Cissé suñ fa jógee nag ñu jox xalifa bi al Mouhamadul Kabir Cissé mu ñaanal jataay bi incha allah noonu leen ko fas yéene tëdëree ñu ngi leen di fàttali itam daairatu mutahabina fillahi seen ndomba foo seen gàmm bi nga xam ne itam moom la leen amal Cheikh tijaan yi mbay moo koy taxaw ak ñaari seex yi Cheikh Ahmed Tidiane Guèye Cheikh Ahmed fii lay amee incha allah ku koy taxawu mooy waa daayira tax bi laa si njiitalu Omar Diouf mooy président bi ak waa daayira bi yëpp ñu ngi leen koy yëgal incha allah weer bi ñu nekk 25 mai incha allah mooy le 25 mars incha allah mais incha allah ñu ngi leen koy yëgal ñeen ñëpp di ñaan yàlla itam yàlla fekkeloo ñu ko jàmm bi jaay si wu jub salaay salaam kon bu ko defee rek di leen yëgal itam daay daara Omar Diouf mu daay daara daaru arxam seen tari daara ji jàpp neen ko juun nayen juun incha allah di sàkku ñaan si jataay bi incha allah ñëpp déggandoo ko incha allah kon bu ko defee rek ñu jël kàddu gi jox ko Cheikh Moustapha mu commencé incha allah liggéey bi Cheikh Moustapha bisimilah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 والصلاة والسلام على ناصر الحق بالحق طلعت الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها المستمعون الكرام والمستمعات أحيي كلا باسمه وذاته ولقبه بتلك تحية ميمونة مبارك alaa wa hiya assalaamu aleykum wa wa barakaatu. mbokk jullit yuy déglu maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ñaanal te di ñaan yàlla nangu sunu ñaan njëlbéen ga di jàmm digg ba di yërmande mujj ga di barke tabaarakallaahu di ko jox rekk oustaz Saloum mi nga xam ne moo fi dajale nit ñi mu jotal ko mboolem ganam gu toog ci bis bi waaye dina yu sunu papa ji di bay Moodu Wilane dama noon damay jóg rekk gërëm Pa ci way yu am solo yi te ñu ñaan ndax jataay bi yàgg na suba ba léegi nit ñaa ngi toog lañu fi waroon wax ci xam-xam ak kàddu jiitu na ci bëccëg waaye comme dañ ci tofal ak tàkkusaan ba tax mag ñu bari di ko xaar looloo tax waaye ngeen may ñi rek mu bañ a gudd tabaarakallaahu di nuyu xalifa Mouhamadinil Kabir mi nga xam ne si ndigalam la ñuy taxawee di wax di nuyu suñu baay Ousseynou Male nga xam ne mooy baayu daara ji ak tabaarakallaahu yaayu daara ji maa ngi ko gis sànq ba léegi moo ngi jiite xale yi. nee naa nag daara ku ñu ko askanee di sëriñ walla di baay wala di yaay am nga sas sas boobu yal na yàlla dimbale leen si ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dina yu Serigne Cheikh Tidiane Diouf ak Serigne Omar juuf mi nga xam ne ñoo nekk fii jàppale Saalum te ku ci ne yore daara tabaarakallaahu Cheikh Ibrahima ngi nale toog ju fi toog ñëpp rek tabaarakallaahu ay boroomi xam-xam leen toog fi ngir yàlla ak mbokk ak su ko defee nayu neen yi ñëpp ziyaara leen suñu bëgga lim tur yëpp nag li ngeen ñi sant pour ñu waxtaanee ko du mën a nekk waaye mbayeen ba dafa am doom war ko ngénte waxtaan leen de jox leen ñi naan ndax ku toog fekk ku toog xiif nga di ko jox muy lekk mënoo ko tee wax waaw wax leen ba pare rek ñi bokk déglu incha allah waaja am doom bi mu amee doom war a ngénte moom nag amul métier te wërsëg wa yaatuwul yaakaaram yépp mu wékku ko ci nit ñi toog ba bis ba jege sëriñ cheikh gisul dara mu ne ñetti fana des ci ngénti gi te amaguma xar ak lu ñuy ngéntee naa seeti imam ne ko lir bi kat sama xel si yow la nekk ma tuddee ko ko ma tuddee la ko imam ne ko ñu tuddee doom de dina joxe xar wala njëg xar dugg ci biir jël njëg xar joxe mu seeti alkaali wax ko ko seeti set de quartier wax ko ko ku ko leer na su ko ko waxee rek dina ko jox xaalis xaj Babacar waaja dem ca bi mu dajalee lu mat ngénte ñëw ngénte ku ci nekk ñëw ànd ak i mbokkam jàpp ne moom lañuy tuddee liir bi bi mu ñëwee toog imam na du liqaam na ko tubbi ku ko moom mu ne ko ne ko yi liir ba gaaya la gaaya waaye kon man tamit maa ngi nuyu ñëpp tabaarakallaahu xaj maxtaar jërëjëf ci teewaay bi ñu ngi lay jotal nuyoo ak sant ci xaj Pape Malick Mbaye ndax mënoon na yebal keneen ku dul yow waaye fu mu la yebal rek fonk na ña ko loolu satlu nañ ko ci moom kon tabaarakallaahu maa ngi dégg dem ba léegi gars yi naan yaay carte d'identité ndax noonu la ko Pape Malick Mbaye waxe waaye ëpp na carte d'identité yal na yàlla gën a barkeel yaag ñi nga àndal ñépp su ko defee mbokk yi tay bisu dara la bis bi mo gëna mag ci bis yi mboolem jataay bu ñu toog di jang wala ñu tok fa di way ko mëna askane askanee bis ba tey ku ñu askane bis ko gën muy alquran baat bu ñëk wacc ci alquran mom lay laaj wa tanti bi amna lo xamni mom nit du ko xam di wuti xaaliss sàggeen yeggul foofu oustaz cheikhuna xaw ma cheikhukum cheikhuna ban baat mooy njëkk wàcc ci alquran ah yow yaay wax soxna yi iqra mooy njëkk wàcc ci alquran iqra lu muy firi daara ji jàngal kan la yàlla wax jàngal Seyduna Muhammad Serigne Cheikh d'accord nga Seydina Omar d'accord nga déedéet yonentu mënul jàng ci jamono bu alquran di wàcc iqra jàngaleel wa alama allahu hadina wa kaana aadamu bayna nafsi uyuunu l arwaxi min nuurin fa innahu ljinsu ala maadinu wa xalqu l axlaaqi baasu l ambiya muqaddimatun faalam wala loolu kañ la mu ne fi aalamil mulki kooku juddu ba am 40 ans ñi ne ko jàngal nga firee ko jàngal waaye wal aslu lil muxaatabi tayiinu wa tarku li shamuuli mustadiinu balaa di yoon yi nee nañ cosaanuk lamar mooy ki nga jàkkaarloo waaye dina ñëw làmb ñëpp moo tax ku dippi téere bi rek wala nga gëm Seyduna Muhammad rek yàlla na la jàngal sëñ Cheikh est-ce que tey waxtaan bi duma ko def ci jigéen ñi. ah. xar waxtaan ak ñoom. maa ngi ne yaayu daara yaayu daara ji di yaayu ci Pape Malick Diouf moom tamit ku sonn la soxna yi ak xale yi nga xam ne amaguñu jëkkër ku ci nar a sëyal ustaas waaj ko groupe oustaz ak a diis. waaw diis yaa ngi mën di yebal ba génn. ku ci war a sëyal oustaz nang ko nang ko waaj ndax groupe oustaz dafa dafa diis. gis nga oustaz boo gis muy takki jabar daa àttanatul mission mission bi ko yàlla teg moom la dem ba àttanul ko mu ne naa wuti soxna pour ma dimbale ma mu dajale gën gaa tuuti fukki xale yow nga ñëw sa ngor dootul la may nga bàyyi sa boroom kër sëgg di fóotal xale yi waxuma ñum jur de njabootu jàmbur ga ca kër ga koo xam ne sa kër baay nga nekkoon sa baay jàpp jànk buy fóot nga ñëw sa kër jëkkër war a fukk fóotal fukki xale yoo xam ne juróo leen soo waajul sëy ba doo ko man kuy sëyal ustaas du siis tey jigéen ñi lay waxtaanal may leen ma ko rek ustaas yi kuy sëyal ustaas wallaay ñëpp sax waaye def ci raw ñoom ndax gan gu dina ñëw seeti ko maam Ibrahima xam nañ ko taawam Seydil Hadji Malick nee ne Ismaayilu la tudd mu yóbbu ko Makka bàyyi ko fa moog Hajara dellu baytul muqaddas toog diiran bu yàgg ñëw seet si ko fekk na Ismaila sëriñu daara la génn doxi mission bàyyi soxna ci kër gi ndax góor su sañ a dem àll bàyyiwul rakk bàyyiwul doom ju mag waaye soxna sël mu bàyyi ko ci kër gi wóolu na soxna sax maa Ibrahima ñëw ci ginnaawam fëgg bunt bi premièrement soo nekkee jigéen ju baax sooy ubbi ji buntu te xamoo kuy fëgg bul woddoo sarbet kaala bi bu ko teg ci mbagg mi may na yegg ca bopp ba ndax xamoo ki ngay ubbil malakul mawtu la wala kan la sidna muhammad ba mu tëddee ci sukuraat malaku mawtu ba mu ñëwee dafa fëgg am na ñoo xam ne balaa malaku mawtu di jël seen ruux da leen di tàggu kan moo la wax sa jëkkër bokku ci Fatima bi mu ubbee na ko lay wut mu ne ko sa papa laa daf na ko tey kenn du ko gis ndax xaalam xam nga lu ko Maluka Matu wax demal ne ko ku dul fëgg buntu jàmbur tey dugg force moo ko soxla waaye Fatima boobu fekk nañu pere ci moom bi mu ko waxee Moustapha Moustapha muuñ te feebar baa nga métti ne ko Fatima xam nga ko kan la mu ne ko déedéet mu ne ko mooy kuy tax tey nga nekk jirim moo tax sa yël oustaz wala sa boroom xam-xam si na si soxna am yi moom xam na ci dara yàlla seede na ne lu muy fanaan ca saalam ba moo ëpp lu muy fanaan ca néegam xalifa baa ngi nii kër gaa ngi fii kër sëriñ chaque jour gan guy nayoo te ku nayoo mu tijji néeg ba jox la ko ñëw tëddi ci saal bi kooku soo yaatuwul mënoo njaboot sëy ba du yàgg waaye yëgal ne coono bi yëpp ñaar fukki at la jigéen su amee 40 ans 50 di sonn rek liggéeyut ndax soo sëyee góor ngeen taawloo baal ma de xaadim baal ma de maxtaar maa ngi ñëw de dama bëgg ñu gàmmu dañ gàmmu ok ah beneen amul foofu ñëwul de jërëjëf. ñaar fukki at jigéen ju ko sa kër jëkkër sa coono war a jeex. ndax di nga am doom suy góor ni nga war a mel sa boroom kër soo ko meree balaa am vingt ans lépp yomb ko suy alquran tari na ko balaa am dix ans xam-xam juróomi at mu commencé lal dars su amee 19 ans 18 ans mu war a xam-xam ko na ko papa dootuma nangu nag ngay sonn yow sax des nga mën ngaa dëgër waaye sama yaay moom lu mu doon def tey maa koy jàppale jàppale gi mooy day dem takki jigéen ju man dara ñëw teg ko ci pegg yaayam su mère bi jógee yàlla na nekk jigéen ju baax dootul nanguti nga togg dootul nanguti nga fóot lool laal mën a la tegal lu la ko may mooy sonn gi nga sonn ci ñaar fukki at yu njëkk yi lii may wax soo demee ca al musatarraf fi kulli fannin wala nga dem ca tuhfatul arusa di nga fa fekk xissa bi mère bi dafa am doom muur ko muy sëyi ne ko doom balaa ngaa dem naa la dénk fukki mbir na ko fukk yi soo ko matalee waatal naa ne di am doomu ko waliyu ci ki ngay sëyal waatal naa ne sa jëkkër sa jaam lay doon ñu ngi dégg fukk daal laa lay dénk li ma lay wax sa wujju boobu soo demee moytu ko ku la ko dénkee bu ko déglu sa jëkkër daal na lay yitteel yaayam sa yoon nekku ca mère ba dénkul loolu xale ba fukk yee ndax jigéen ñi bëgg nañ ko xam jonge xam nga dañ naan jonge fukki yu ku mu dajee ci moom rek jonge na mu ne ko doom soo yeggee premièrement nekkal jéebéeram mu nekk sa jàmm xam nga góor ba jigéen la mën ci néegam mooy jigéen ju rëy diis jigéen ju ko def yàgg sa jëkkër doo leen yàgg wala ma wutal la wujj xam nga diis mooy lan loo ko wax mu gis boppam jigéen juy sëy warul mer ba jëkkëram xam na mer na sa jëkkër su meree ca mbedd ma ci kër gi fekk nga mer nëbbal sa mer ba meram dal Serigne Cheikh mu ne ko sa jëkkër su ñëwee ci kër gi ak kontante fekk yow nga mer mu ne ko nëbbal sa mer ngir bañ a dagg habitude kontante ma ndax lay léeg nga contane soxna si mel no xamne ba ba ba jot wala ba beut set dara dotul la saf mu ne ko so nekké djébéré mu nekk sa jamm waye premièrement bi lima lay ñëk a dénk mooy fexeel ba bum xiif jigen jo gis muy naajee tek agn jëkër ja mu ngi wër mu ngi wër kum ko kum ko takal wal ah, day waral gaaw a am wujju yéex a pare añ wala ñàkk a mën a togg baaxul xam nga coono bu ci nekk mooy fekkente ne yow góor gi sa soxna teg na añ bi nga séq kook say mag ak say rakk muy waa kër gi yow soo xiifee ak soo xiiful sañoo njakk jox yaay mujj ca bool ba waa léegi su lekk gi neexul foo jëm seetlu leen ko góor su jabaram toggee sañul njëkk a jóg soxna si wala mu njëkk a ca bool ba su xiifee su xiiful dina lekk ngir sagal jabaram mu ne ko doom fexeel ba soo yéggee balaa sa jëkkër di xiif nga tegal ko bool mu ne ko ñaareel ba su gëmbintoo loo ko soxla soxla bàyyi ko mu nelaw mu ne ko ndax gëmbintu noonu la boo xam ne ku mu dal sa kaw dootoo ko mën a booleeg dara Seydina Omar mu ne ko ñetteel ba bul nekk jigéen ju taayal ci sa bopp gis nga am na ñi ngay gis ci jigéen ñi fii bañ bañ waajee pour ñëw ci xew bi lañ doog a sangu lañ doog a kolu te ku ci génne kolam bopp baa nga fees dell ki ay teeñ ah nañ seet ah. <laughs> yaa booy yow boo <laughs> ko si de mu ne ko nanga neen gis nga góor xalifa bi dafa bëgg fu mu toog rek jabaram toog ci peggam loolu nag célibataire yi xamuñ ci dara soo gisee ku takk jabar bees génnam du bare mooy pour moom kenn warul toog ci peggam ku dul jabaram waaw ba tax soo ko seetee yàgg fa sax ne diw dafa dof si borom seet kenn du ko seeti waa léegi koo xam ne toujours yaa ngi toog ci peggam su dee danga xeeñ dala fay bàyyi génne dem ca mbedd ma mu ne ko kon sama doom nemmeekul say ruqu-ruqu poqotaan wutal ka boppam sangu taxul du xeeñ damay waxtaan ak jigéen ñi tay de maire ba moy wax lo sangu-sangu parfum kenn du ko def ci pokotan day waral febar day waral pokotan bi di boy. te bés bu amé gom nga dem hôpital waye tuba bi fexé nañ ba wutal ko parfum boppam Mune ne ko karaw ga bu ko fa de bayyi ndax su fa nekkee lo ci def def parfum su ñaké xéñ mu ko kon na nga nemmeeku sa xet ba mu bëgg di la jege na sa andi di gaaw ba mu bëgg di téla wacc di mëna lek lekk mu ko ñaareel ba oustad salum su la joxé dépense bu ko wañi ñettel bi su la dépense lu wañi dépense bi gis nga amna ko xamné xam nga lu tax jabaram bokul nat moy natt ye tax gañi di wañi dépense ah maire bi de barke yàlla daa toog pour ma gis nga sa jëkkër bépp dërëm boo ko lekkal te mayut la ko ëllëg yàlla dina la ko réglé te xam nga réglé léegi fii ci àddina mooy dangay am doom juy sàcc waaye am nga droit am ñaari jabar kenn ki gën laa nangul nga jël ñetti junne xëy may ko kee mayoo ko dara dagan daga na nga am ñaari jabar sa ben goro bi nga yobbu ko makka ke do ko yobbu mak xaral ma dugg foofu tay daga na nga am ñaari jabar fanan si ki sekk ak mom fan kële do sekk ak mom daga na nga am ñaari jabar di tukki tan ku la neex and ak mom baye fa kassa dess ñaata la wax ku ci nekk nag bu la jaaxal nga doog laaj ñi leeral góor ga dafa am ñetti jabar aawoo ñaareel ñetteel xalifa bi lu aawo bi wax mu xëpp ci suuf lu ñetteel bi wax mu ne ko dangaa soof waaye lu ñaareel bi joxañ mu dagg du tee ma ànd ak aawo yi nag <laughs> ñetti jabar la am Serigne Cheikh su aawo waxee mu saboote ko su ñaareel bi wa joxañee mu dagg su ñetteel bi waxee du ko faale dëkk bi nag dem ba seetlu lool ci góor gi na ko yow lu tax kii rek mu bàyyi ba bés dajee ñépp ca pénc ma tisbaar ñu julli ba pare mu woo ñetti soxna yi ku ci nekk mu jox la seize fekk sa këram doon na yar benn ginaar ak benn dawkat ñi koy wax xaj ñu toog mu ne aawo bi demal ci kër ga indil ma sama demal ci kër ga indil ma sama sajaada bi waa waaja jóg dem indi aaw bi jóg dem indi sajaada bi na ko nijaay foo bëgg ma lalal la ko mooy ñooñ di sëyee ci biir nit ñi mu ne ko foo ko lal baax na ne ko ñetteel bi demal indil ma satala gi def ci ndox ma jàpp ñetteel bi dem xaw a yàgg na ko nijaay dama doon tàngal ndox mi ngir bañ mu seddaay bi lor la te bëccëg la kat mu ne ko ñaareel demal sama kurus ga maa ngi ko wékk sama bopp lal ba nga indil ma ko ñaareel bi jóg di dem xaj ba topp ca ginaar ga topp ca mu ne leen gis ngeen ñii amuñu xel ci jóg na kenn topp ko kee jóg na kenn toppul ko lu tax mu jóg ñaar ñi topp ko njariñ njariñ xaj balaa ngaa jóg mu topp la loo am jox ko mu ne leen ñii ku liggéey def sa poche kii mu liggéey jox ma ñii ku mu ci sant nga tànkam lu ma kii su xamee lu ma bëgg duma ko ko sant est-ce que dégg nañ li ma bëgg wax kon damay wax ne jigéen lu mu am ci jëkkëram moo ko may boppam waaye nag am na góor ñu jeng nag mhm. am na góor ñoo xam ne dangay ngay ànd ak ñoom ñi daanoo ko jóg ba bés ñëw bunt yi ubbeeku nga dem takk benn xale bu am xaalis fa moom gisagoo jigéen ju am ñetti doom ñu fase ko bàyyee ko ay doomam mas shariatul islaam def ne góor ak jigéen suñu amee njaboot su tas amee seen diggante jigéen ji suy dem kuy nàmp kuy nàmp fala force da yóbbuwaale koo xam ne majeur gul di góor di jigéen fala force day ànd ak ñoom demaale ko jarul dem tribunal ndax jigéen moo war a yar doom ba keroog muy majeur suy jigéen ba keroog ñi koy may jëkkër muur ko mu dem sëyi waaye su dee góor gi majeur na du ànd ak yaayam mais day toog ci baay ji waaw léegi su àndeek ñoom dem kër ga kër maamam nekk fa lan moo war baay ji mooy dundal leen fekkente ne fase ba fasem yar la yar xam nga fasem yar ku ko def jigéen kenn sañu koo takk ndax ba léegi jabar la soo xëyee yaa jël dépense bi jox ko seet booy na ko yëtal sama soxna lii mën na ci añ reer si ndékki si mook sama ñetti doom yi ñu ne ban dépense nga koy yëg ñu ne bi nga doon ko jox ci kër gi fekkee ginaar nga leen tàmmal dépense su ginaar nga koy yónnee ci kër yaayam su fa nekkee ba nga jëliwaat ko mu ñëw baax na su fa nekkee ba idda gi jeex jigéen ñi xam nañu idda su idda gi jeexee nag yaa booy lislaam danaan la continuer dundal doom ña waaye jabar ja moom dundal ko waratul la xaw ma ñu ngi dégg li may wax wala déet waaye yebal jigéen kër yaayam mu dem toog fa di dem marché di daanoo ko jóg nekk ak ñoom njaboot gi ba nga xëy màgg njaboot gi ñëw def la noonu yaa leen ko ji tabaarakallaahu baax na de sëriñ jerejeuf Serigne Cheikh ku am ñaari soxna amna dura ànd ak ku ko neex wa kay jigen lu mu am ci yaw moy nga bokk ak mom néeg lolu mom la yàlla ne fa in lam tastati num ko waxe fankihu ma taba min an nisaai masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu adala ga moy bokku néeg ba soxna yasin seni sunu mag jooju ñu ngi koy ziyaara ax ñëw na ci bis bi ngir yàlla ak cofeel ànd ak Abdel Aziz Mbaye male yal na yàlla barkeel sëyam soo amee ñaari soxna jigéen ñi oustaz baal ma jàkkaarloog jigéen ñi ndax kalaame gi bari na caat yow bokkoo ci waxtaan bi ndax amagoo jëkkër ku Saalum nee na célibataire la ku am ñaari jabar benn jabar moom soo ko amee l'islam daf ne chaque jour yéenay bokk nekk chaque jour benn jabar chaque jour yéenay bokk néeg Chérif yow waxuma ak yow chaque jour yéenay bokk néeg waaye nag bés bu demee ba njaboot am sëñ Cheikh amoo droit yow sa doom sa jabar ngeen bokk néeg te war a séq ndaw sa nee na donte xale la boo xam ne amagul juróom-ñaari at ñi ne donte xale buy nàmp la amoo droit teg ko ci law bi lal bi di ànd ak yaayam ndax xale dafa am basiira boo xam ne yàlla daf ko ko defal ba mu nekki ci biiru yaayam la ko am ñu ne léegi nooy def ñu ne nanga ko wutal laluk boppam jël rido doxale ci diggante bi su dee xale bi moom xàmmee na na génn néeg ba am seen néegu bopp ñoomu neen te góor ak jigéen bu ñu bokk lal fekkee majeur nañu waaw su la ndaw si nag nangulee su la neexee nga nekk sa néeg mu nekk néegam waaye su ko nanguwul force su néegam ngay fanaan ndax loolu xaqam la waaye soo xasa am ñaari jabar Serigne Cheikh buur nga waaw su la neexee wut sa néeg ñoom ku ci nekk néegam léegi ah waay kay <laughs> ah, maa ngi ñëw sëñ <laughs> bi yaa ngi dégg ustaas di la sànni nee ma kanaa ñaari soxna yi moo tax ma ne borom ñaari soxna buur la xam nga lu tax su la neexee am sa néeg yow nga di leen fekki ku aaye wala ñoom ku aaye ñëw sa néeg diine nag lay wax lislaam fexe nañ léegi ba aada soppi lépp mais diine moom lii la tëral. su la neexee ku aaya nga fekk ko néegam su la neexee ñoom ku aaya ñëw sa néeg waaye lislaam ne nag ku aayewul amuloo duraa dem néegam Oustaz Guèye Guèye Guèye Guèye Guèye ndeysaan gëj a gisee jërëjëf ah. ah. waa kay jërëjëf Lagi ñom ñaar Serigne Cheikh su ayé ci kenn ki xam nga lu ko l'islam sant su jant su xeyé xam nga ayé fu mu commencé su jant soyé ndax ñaari jabar lu kompi liggéey la Awo bari na lu lay nangul mohammed bës bo takké ñaarel doto la ko nangul dégg mu ne kon ma ray ko <laughs> kérok biñ la mayé soxna muy sét bis bobu ngay japp konté ba semaine bi mat muy ñaari fan su juróom ñaari fan yi matee nag nga dog leen di dëj ñoom ñaar ñi toog nga ne nañ ko waxtaanee balaa nañ ñu àtte nañ ko waxtaanee mooy man sama sentiment su ma demee ci kii tey suba ca kee lay ku ne benn fan soxna yi ne d'accord nañ loolu mooy continuer ba faw su la neexee yow nga ne ku ci nekk ñaari fan su soxna yi d'accordee nga fekk leen si sin bañee l'islam na la amoo droit mais benn fan bi moom yaa ko moom yow jëkkër ji su la neexee ñetti fan su la neexee semaine su la neexee weer boobaa moom ku ci nekk daal li ngeen chartal keroog rek l'islam fekk na leen ci léegi nag fekkee da leen jox ku ci nekk ñaari fan <laughs> nga war a dem ci kii mu tukki xam nga dafa am jigéen ñoo xam ne suñu tukki dem naan la na nga fanaan sama néeg <laughs> ah ku ci tukki rek bokkoo ñaar ak jigéen a ngi nii du ñu am ay ñaar kenn ki mooy ku tukki ku tukki amoo ay sa boroom kër ci sa wujj lay nekk ba keroog ngay ñibbi amul su ma ñëwee nag sama boor yi fay ma ko keneen ki mooy ku fay ku fay ñàkk na wujjam wal fay nag bu bu ci gën a diis mooy ku jël ay bagaasam dem kër ndeyam ak baayam bu ci gën a woyof mooy ku tukki te tàggoowut kooku dundal ko wàcc na la dëkkal ko wàcc na la dëkkoo ko wàcc na la moo tax ma ne borom léegi nag tey bis bi nga war a aaye ci awo bi oustaz li la sant mooy tëdd ak moom ci lal bi ndax jigéen dafa ragal te dafa bëgg ku ko wétteel yi bés bu xamee ne ponkalam góor a ngi ci ginnaaw suñu daaj kër gi yoonam nekku ci kon moo tax li ñu soxla mooy wéttali gi nga koy defee neen la su la ko sa wér mayee nga def su la ko mayul kenn du la ko forcé waaye nag xàq la boo xam ne dafa war góor mu matal ko digganteem ak jëkkër ak jabaram looloo tax mën na la su la neexee nga ay ci kii ànd ak moom kële nga bañ a ànd ak moom ndax fii sentir nga ko te fee sentiroo ko waaye nag daganul nga ne kii laa gën a bëgg saa yu ma aayee ci moom ànd ak moom këlee moom comme des naa koo bëgg su ma ayee ci moom ma tëdd nelaw kooku boobaa da ngay ameel ki ngay ñàkk a àndal xàq boobu leer na waaw waaw waaw kay jigéen bi nga xam ne dafa war a am ñetti fan am benn fan dem tukki nee naa ku tukki rek ñàkk na aayam kooku su ñëwee su fekkee kee ca aayam day xaar su kii ñetti fan yi matee mu doog a dellu ci moom xam nga ban problème moo am mooy nag ki nga xam ne dafa am aawo nga nekk ak moom nga am ñaareel mu nekk beneen réew wala beneen dëkk foofu mënu ma gis gars yi di ci def man ànduma ci ndax jànguma loolu. ah ah su dee góor gi moo tukki waaw ah, kay boobaa yow soo ñëwee fi nga yemoon ngay dalee continuer soo ñibbisee fi nga yemoon ngay dalee continuer xam nga ban moo ban la sharia wax te xel nanguwu ko mooy tey nga aaye ci ñaareel bi oustaz invité la këram nga dem nekk fa ba bët set nga ñibbisi soo xëyee suba doo kii doo ko fay aaye mooy ñàkk dañuy jàppee na moom nga tooñ soo xëyee suba fekkee fee nga war a dem da ngay dem foofu xam li ma bëgg wax kon tey soo war a fanaan ci nit nga dem feneen moo xam gàmmu la wala conférence lu mu mën a doon ba faat bisu jàmbur bi bës ba sa topp jàmbur ko moom kon kooku yéen ñaar yéen a koy lijjanti gàmmukat ak nabiyen yi safara lañ jëm <laughs> xaq kay dara leen ci matul Pa Maxtaar a ngi nii sama waay ju baax la soo ko laajee mat na ñetti fan a ngi nii demul këram waaye gis nga su yeggee bëccëg bi day neelaw wa neelaw benn waaye ñu amata kenn mënu ko gis bëccëg dafa bëgg nelaw nag dangeen ngeen jàngul yéen ndax nit ki fekkee guddi yëpp dangay dem ci programme yi soo ñëwee bëccëg da nga war a wéttali sa soxna bépp nabi wala gàmmukat buy fanaan ci gàmmu yi bëccëg ñëw wéetulu ko sa soxna li ngay def neexul yonent bi ndax ndax xaqu jàmbur la te moo ne wa aatu kullu zi xaqin xaquhu bu baax na ak ban beneen bi jigéen mën na maye aayam hmm? mën na ko sax jaay am na ñu bëgg xaalis kay tey su waree ñëw aaye ci aawo bi aawo bi ne ko aaye gi may naa ko sama ñaareel bi sama sama xarit bi muy ñaareel bi yow góor gi fekkee moom nga centre su la neexee bañ na ko force fii lay fanaan ndax su fanaanee fee da nga xam loo fay daj leer na waaye fekkee may na ko jëkkër ji nangu lislaam danaan la tey dagan na nga dem fanaani sa ñaareel ba ndax moo jël xàqam maye ko waaye dagan na góor jënd aaye jigéen ji day gis règle te moom gëj na séq te ragal na njaaloo te su fanaanee si kii tey du mën a séq moom ndax sharia moo ko tere séq ga yasaluunaka anil maxiid qul huwa azan faatasilu nisaa fil maxiid mu ñëw na ko jaay ma guddi gi billaay bu ko jaay ndaw si bu ko jaay may ko ko boobaa nag soo neexee jaayee ko ko un million yaa xam ndax moo bëgg loo ko jaayee rek lislaam ànd na ci boobaa soo ko ko jaayee oustaz su ko neexee dem ca ñaareel ba <laughs> ah. waaw kay ñu bokkul benn dëkk foofu laa duggoon masala moomu yow dëkk bi nga nekk soo takkee jabar lislaam daf ne foofu la war ñëw sëy si waaw nga takk benn awa gambi awa la tudd wala mu ne la man nag damay liggéey te mënuma bàyyi sama liggéey ñëw sëy si Sénégal boobaa lislaam danaan la mariyaama walla soxna ma nekk senegaal moom mu ngi ci dëggam moom léegi yaa ngi ci kër gi yaa ngi may bokk nekk da ngay jàpp ne attey benn jabar nga rek léegi nag soxna si nga takk Gàmbi bàyyi ko fa bés boo jógee Sénégal dugg Gàmbi te moom ngay nekk ba keroog ngay ñibbi moom tamit su déplacé woo ñëw sa kër seet si la xam nga am na ñoo xam ne ni ñuy def diirama bi fi nekkee ñoom ñaar ñooy dëkk day fekk mu neex aawo bi kooku bés bu ñibbisee ci kër gi jàppal ne tey nga doog a am ñaari jabar ku nekk ñaari fan tey fii ñaari fan suba fee ñaari fan tey ñetti fan wala benn fan yaa xam su ñëwee nag aaw bi baax lool na la kii at ba at la fiy ñëw may naa la gan gu muy nekkee ngeen ànd ko boobaa lislaam ne su leen neexee ànd moo tax yooyu nañ koy bàyyi xel bari na xale bu juddu bindam manqué wala wërsëgam tëju wala xel ma naqari lii mooy sabab bi yàlla incha allah boole muccal lu des incha allah ci lañ koy mottalee la des na benn <laughs> ànd ak ñoom waaye sëriñ jërëjëf waaye gis nga fekkente ne tukki la gi nga xam ne yoonu yàlla la ñaar la ko boroom xam-xam yi tuddee fi sabilillah mooy ngay aji wala ngay xare ji sooy aji wala ngay xare ji lislaam danaan da ngay teg ñetti jigéen ñi walla ñeenti ñi bantale bantale mooy nga bind seeni tur dugal ko ci benn pot woo benn xale na ko kaay génneel ma xale bi su génnee ki turam génn moom ngay àndal ndax noonu la ko xam Muhammad doon defee mais amoo duraare xool kenn na ko kaay ñu ànd waaye fekkee yow aji woo damoo xare ndax da ngay gàmmu ji wala da da ngay tukki daal si gàttal moo xam ngénteeg foo mën a dem lislaam danaa la xoolal ku la neex nga ànd ak moom moo tax lislaam ak nante benn te bi nga xool nga nga xool kii mu ngi ëmb ba diis kook soo ànd ak moom tukki tey nga dee coono la lay jural nga xool kële mu nga ñaawa ñaaw ñaaw boo xam ne soo ànd moom ñu ne waaye kanaa gisoo jawru sëñ bi la wax boobaa nag nga tànn ku ku ku ku yem <laughs> waaw ko neex a présenté <laughs> côté boobu moom l'islam billaay bi may jàng masala moom dama kontaan loolu moom xalaat dëgg la jëfe ah ku jéng yonentu ne soo dekkee ci sa bàmmeel genn wàll yaram paralysé genn wàllu xam ngeen ko maar day taali loxo beeg bët beeg tànk yi dee nga xam ne benn côté ngay doxee ko gis mu génn si bàmmeel di doxee noonu bu laajte lu ko dal daa jëngoon <laughs> ah ah. <laughs> ah yow daal yaa daan appoo vent daan tooñ ñun waaye tey moom tey moom loo dégg rek nangul tabaarakallaahu ustaas guddi na ba noppi te wallaay bëggoon nañ gàmm ak bu baax a baax dugg ci téere yi waaye su ko defee ñi lekk ko ndax yërëm nit ñi yenn jetaay yi day commencé neex lool mais dem ba ca mujj ga soof ngir kàddu yu bari kàddu yu yàgg te afdalul kalaam yi ma xalla wa dal la maa xalla la ana tànt bi ñu bëgg jóg taxaw ne yàlla jéggal ma toogaat ma da koo firi. kan moo fi gën a bëgg Seydi Maamu Ahmad jógal taxaw mata madana. mata madana ki min kudurin fasaafin salsalun boo xam ne nuuniyatu lañ ko tuddee ndax xaafiya bi nuun la Haj Babacar. waaye baxru bi waafir la lañu ko wëyee faa'ilatun faa'ilatun faa'ilatun faa'ilatun faa'ilatun faa'ilatun waaye dafa war nag ñi xabdu ko ca arut ba mooy téere bu njëkk bind ci Seyduna Muhammad dugal fa xeetu xam-xam boo ci benn téere ruqyatu dalee kay fa tarqaa ruqyakal anbiyaau yaa samaun ma tawalatha samaau arabi critique ko mënoo way mu bañ ku ko critiqué jël ndaw suñu tuddee daant wax ak daant façon waxin boo xam ne arab mënu ko عشاق برامة خبريني متي dafa am ci arab baat yu ñu tuddee add daat mooy baat boo xam ne day firi lii di firi lee te baat la baatu bayn day firi jokku di firi dagg Maodo di ko laaj na ko ahibaaluki fii baynin am faati ma matee maa daana Maodo ba mu xësalee ba ca taxallus ba def na ko mate ma daana saa yu aada baxruki min ku duurin baxruki sa géej min ku duurin ci ndox mu tilim عبقري قبر لمبتدئ معزوف عبقري يحسف للعلم والاقتبار مستمع وصيحة الإنكار نبي برم بلاقة نانا دغان نغفر مسنب إليه سنوكو خمي نبي مولانيكي يننتو عبقري عبقري مويكي جمال نمو دكال أريحيون أريحيون مويكي ياتو لوم أمبوكو كوم نيب سفي الله سفي الله

moom la yàlla jokki na ko loo def gërëm naa ko moom la yàlla def mooy gindi ku gindeeku waaye mooy bégal ku bik ëllëg yonentu yàlla Muhammad su toogee ci mbooloo Oustaz Saloum jóg lu reer kenn xelam du ko daj wa aynul xalqi aynul sangu mbindee fi ma dégg. wa aynul xalqi sangu mbindee fi. aynan xat nahaana. danga naan xat ca dégg-dégg nahaana tere nañu aynan lekk lu ñu moomul. wa aynul xalqi sangu mbindee fi. xat nahaana aynan. moo ñu tere ñi lekk lu ñu moomul. yu bëgg tuman ata defaree su la delloo taraanga nga tiit. bihi aynan hunilna laysa aynun nee na ci Seyduna Muhammad la ñu amee xam-xam. yumasiluhu bihi aynun laysa aynun amul kenn aynun goog bi maana ahadun yumasiluhu di tollu yeneen bi ci bind ak jikko. ana waa kër Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi aynin fi Saalum lii rafet na de. sëñ Moustapha nag bala ngay yegg si xale bala ngay yegg dama bëgg ñu doon caa xale bu réer ñëpp laa wax ku ma ko joxoon addi yonent bi yàlla boobu Mariama ñëw moo tax nga dagg nga banque dafa nit mais da nga sañce soxna bu Mariama moo tax nga dagg ku ma ko defoon addi Seydina Muhammad li dafa rafet yàlla boo banque banque ndeysaan Hadj Makhtar nañ ñëpp jóg góor jigéen mag ak ndaw Alhaji Seck borom iPhone yi borom monteur yu rafet yi man yéen laa faral ñoo leen joxoon moo ko addi yonent ah waay waay ndax lii muy firi kat jërë ngeen jëf sëriñ aj maxtaar yaa ci dugal de soxna ko de jërëjëf aywa bismillah baaleem rek ngeen joxal ma ko Oustaz Saloum ndax yonentu ku ci wax ke waru koo dagg bismillah ya ajabana lidin nuri madirin wa nuru asrihi akay jërëjëf Fane Ba kay Serigne Serigne dafa guddi mag ñi dañoo toog te ñu ngi war a jël carte. ñu ngi lay ziyaara bu baax. yow dañ lay bàyyi nga mat ko way ndax wax dëgg yàlla bëgguñ toujours rek di lor nit ñi wala di jël temps jàmbur yow danga nga a toog fii wayandoo ak Pape Malick léegi nañ la bàyyi rek nga waaw nga woy ñaari bay rek incha allah ñu tëj su ko defee maa ngi nuyuwaat ñëpp Oustaz Omar Diouf maa ngi lay xaasal nuyoo ak ziyaara Saalum mi bari na lu man ci koñ bi yaa tax mu man ko yaa ko mag jiitu ko ci daara waaye wuuf nga ko tabaarakallaahu ba fu mu toog di la jëw ma tax seen diggante yal na yàlla gën ko barkeel Oustaz Gueye kontaan nañ bu baax moom mii njabootam yaa ngi ca daara ja tabaarakallaahu waaye seen Cheikh Tidiane Diouf mi duñu ñu sonn mukk di ko sant ndax nit mag la raw la gën la foo waxtaan waxtaanee mu ànd ak njabootam ne nañ dem déglu ji ko wala gën la conseiller loolu mbaax la su ko defee sëriñ yàlla na yàlla yokk taxawaay bi daara ji mu gën ko barkeel sëñ Mor Mbaay mi ak alxaaji Seck toujours damay am si ñoom natt ndax damay wax ba toog doog leen di gis jógee Jurbel moom taraanga la xam fexe na ba programme yi bu ci nekk mu jël dara yóbbu fa ci wàllu kado loo xam ne taraanga da nga koy xool ren ba déwén su ko defee na ngay sagalee jaami yal na yàlla sagale alxaaji Seck mi borom montureeg kii iPhone yi maag Babacar Seck dañ fa dem daaw di jand mu jox ñu ku ne benn ren ñi bëggaat sekk na ma nañ dem sekk nañ dem place sekk ma ne ko suñ demee du ñu jaay yàlla seede na ko tax damuñu waaw loolu nag li muy tegtale mooy alal boolewu kook ay nitu démbam gis nga waa daara ji oustaz mii man man maay seen magu daara du ma seen sëriñ gis nga bañ nekkandoo ci daara ja ñaar daal xamal naa ko ko ñaari ñaari ñaari jikko xaw ma ayib la xaw ma jikko la moy ñun oussa salum ah. mom mo doon sunu magu dara sëñ malik mo doon sunu sëriñ yalla daf ko dagal mu xaw ñi mag lool ñun la daan andal di yelawani gis nga suñu andan genn mom benn problème la am moy doñu laal lay léeg nga tooñ ci daw ñu and ak mom bës bu la léré na so yelawani man nga xex mom nga mom ngay andal jaral nako mutaila mu tay la bakene mais doñu laal waaye nag problème am mooy mën na la noggatu ba nga jooy mu bàyyi la dem moom daal mën na la jooyloo waaye du nangu keneen jooyloo la dalifa bi moom duñ ko sant dañu koy ñaanal wérul waaye feeg ñaanuñ du jóg moo tax nag ma di ko soraale xaj maxtar bëggoon naa ñu gàmm bu baax waaye su yoon jeexul waaxisul di ji nuyu naa la yaa gëru bi nga àndal yëpp tabaarakallaahu di nuyu soxna yi di wax salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah waaleykum salaam wa barakaatu. Moustapha daa fekk de fukk moom sama wëllëre la sama lépp la ay xew yu may am yoo xam ne day jóge Tiwaawan mook Cheikh Tidiane ñëw ànd kook man ba mu jeex takk tabaarakallah ñuy déggante si xel lu bare moo tax ñoom sunuy kilifa lañ ci lii te yaa ayyuha alladina amanu la tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi foofu rek lay sukkandiku moo tax may laaxatu ba ñu yëkkati ci seen kanam waaye comme insisté nga ma jaxase ci sa kanam rek jéem a tari bu ma gaggee rek nga gaggante ñu ngi nuy xaaj Saloum di sunu jarbaat tabaarakallaahu ki jur yaayam ak ki ma jur ñoo ba mbañ tabaarakallaahu loolu yàlla dogal ñu sunu jarbaat yaayam sama doom bàjjanam sama doom bàjjan la nooy doom nijaayam e ñu yëkkati ñaari ab rek delloo kàddu gi incha allah yal na yàlla defal ñu tawfiix yal na teewe yàgg fekke yàgg tal ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam njool nag yow doomu abdallahi adnaani e ku bëgg yonent bi defal nii adnaani leeral nga kaw mu bi te dekkul lu يقخم يقخم يا سد يا سد من حلم وعرفاني يا سفوت القلب يا خير البريت يا سمك عرب اقرب يا جيت سوداني يا جيت ينني يا لنسد من مصام يا sinquut bu diwaani yaa tax malaak sujjóot waaja yaa ko xamal turiyam tuddee ya yaa def tor du yaa tax ba nu un labal noonam ya jël ña ca tabal ca gaalam ja ees kay yow ma tufaan ko sànne captaal la ca xew bañ wax ne yaa naaru ko ni yaa ko santaane gëñ naa ne Yunus biiru gën wa yaa ko fa yor yaa tax mu sabbal boro moom foofa xam naa doon balaa dem fa nekk laare sa mbir laare sa mbir laare sa mbir ndaanaan yi ndaanaan yi yaa leen jox yi daane yaay musla yaay ram yaa xam yàlla yaa nu ko wan yaay démb yaay tey dina lu sam aay yaqiin wa ko taw wa ko taw ko meññal ko ba mu jur matal gu nekk ci kaw suuf yaa yaqiin wa wa ko taw saxal ko meññal ko ba mu jur moo lem lu arjana rombo kii teraanga yu rëy yaa tax ñu sakku ko mindro in waray aay jinneeg malaayika yaa leen saytu fuñ mën a jëm mën a jëm yaa leen di womat yow lay bas di xaaja فرصة يا كسرى كسرى يا لقطو كنت أي لمن يكيمان يا لير جنتني يا لير الكبي حرس سنقني يا كتحل منو بإيمان يا تار مكتب diina yaa te yaa barkel ko yaa sellal barab yi ko wër yaa koy musal di ko yaa am jaloore yu rëy yu rëy yaa am manoore yu wér ak mbir yu kéemaane أحمد المصطفى يا أم دلور يوري يا أم نور يور أفر يكي معين تنفي تنفي موغن يكون من هم حسن ومهنن أمر كي وها نمل ناني جكم ينوغن نيخ سوغر بنين دخسو دخسو غي جسلوات جمع روما أنسياني na wet ba mu doy am nag wegel ba mu doy ba mu doy taaram ba ak kersegam lamboo ajibaani kay akramul xalqi mbaaxam kenn xamul fu mu yem fu mu yem jëmmul makaarimi ku may do tu yalwaani kay akramul xalqi mbaa xam kenn xamul fu mu yem fu mu yem jamul makaari mi ku may doo te yarwaani fi mu toll mooy mucc waay kàddoom ya ñoo roy waay téeréem ba mooy jëm waay axim bi quraani fuñ toll mooy mucc waay kàddoom ya ñooy roy waay jëm waay ak simbi qur'aani ah tabaarakallaahu tabaarakallaahu mu mel ni guddi na ñu ëttal foofu rek ñaax ndongo daara yi ñu gën a góorgóorlu ci daara ji ndax kat afdalu ma yutla ma yuqaalu wa xayru ma yunfaqu fihi lmaalu boo ci nekkee nag léeg-léeg ñu lay xaw a ñàkkal fayda bi ñu nekk ci daara ji ndeysaan benn jigéen bu xaw a ñëw rek traité ñu lu ko neex ma daal ci mer rekk wëcc ci avoy ne ko taalibe yi duñu bëy bu leen leen def ni bëy jaamu yàlla ak liggéey loolu moo di seen xëy ma ne ko am am bu doy bu mu la jay jongoma it bu mu la jay ba tax nga jóg ngir di fay daara bi lay doo ko fay ma ne ko tey nga garde say dërëm te noppalit sa yaram ndaxte daara faw mu dem leeram yàlla kaw la jëm billaahi wallahi kaw la jëm ne ko waaru ci daara ak i doomi daara ndaxte doomi daara ñëw fi tekki dara ku dul doomi daara doo fi tekki dara ma ko ku jox këram dana am ngërëm boole ko tabarakallahu non dama ko air airu rappeur laa ko daajee woon tabarakallah wasalaamaaleykum wa rahmatullah am na defal ñu tawfiq maa ngi jégalu ci baax allah xaaji malik Touré am na allah kon dafa mel ni sant bu baax gi egg na sa ndong la ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal yàlla tafal leen tawféex si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne suñu ko nar a kii yëpp day day kii waaye daal ñi ngi gërëm yaayu daara yi te di si jéggalu xam naa ne ku fi toog suba ba léegi bàyyi nga xel xale yi nu ñuy tëree daara ji at bi dafa nekk si ay xat-xat yoo xamante ni daanaka li ñu si bëgg mënuñ koy am damoo neen ba jël suñuy ustaas ngir ñu mën a jàppalante moom si daara ji waaye taxul tamit liñ bëgg ñu am ko ba yalla def mu déplacer wu wat ñu nekk ci di gorlu waye nak ñi ngi gëreum yaay yépp yaay yépp bu ñu tuddé rek dañuy jum dañuy jël nuyu bi rek tek ko ci loxo anti mama mi nga xamanteni ak yaay jooy bi tay mi ñu jagleel bis bi nga xamante ne mom doom doomam xoraja lepp lu ci war daf ñen ko kon nak ñi ngi leen di ñaanal seeni njaboot ak mboolem ñu indi drinks ñu indi ndoxa lépp loo xamante ni na bis bi rek nga duggal ci sa loxo ñi ngi leen ñaanal yalla tawfiq yalla na la yalla fay yiw ci daraaje yonente ya bi sallallahu alaihi wasallam sallam ñi ngi gërëm bu baax xaadim loo dama koy faral di wax xaadim loo mii tàkkusaan bi bu amee ginnaaw yàlla moom la bi Pape Malick jàppale waa Wéri Ngara fa jaar gërëmaale waa Wéri Ngara mais na ko ah léegi nooy def ak sama programme yi ci suba si ndax xale yi su suba si la ñuy tëri mu ne yow kay da nga war a wax ak Pape Malick mu ñëw raxasal la foofu rek comme ni ko gars yi defee yaakaar naa raxas la ñuy wax mais na ko pourtant wax nga dëgg de xaaral ma xool Moustapha noonu la Moustapha koolee Pape Malick Mbaye ne ko Saalum bi su tëriñ bi nag si dimanche bi dañ si bëggoon a def benn tàkkusaani seen Babacar mu ne loolu amul benn problème mën nañ koy def kon nag nii la yàlla defee tàkkusaan bi di ànd te saa yu méngoo programme wéri ngara gi rek incha allah mi fii lay doon ndax bu ñu sañoon sax du mos a raté chaque jour rek Pape Malick parce que boo xoolee wax naa ko Moustapha tey ñi ñuy tudd si ay musiciens fookat jaaxaankat gàmmi fii dafa am ñoo xam ne dañ leen jàppal ñetti date lu ma trois date wala quatre date yoo xamante danaa danaan diw sàngam tey fii lay tëgg tey fii lay tëgg te fii lay tëgg léegi lu tax ñun suñu nabi yi am loolu fii si réew mi kon su ko defee Pape Matar loolu lañ bëgg fii si réew mi Pape Matar jóge na wiir ngara ñëw na kër sëriñ Pape ñëw na kër sëriñ dem na koo loolu dem na bijuloo parce que loolu sax la tabaarakallah bëgg neen ko kon nag boo demee tabaarakallah gërëmal ñu bu baax a baax xaaji euh, Pape Malick Mbaye ne ko dëgg yàlla bég neen euh, bég neen lool euh, sëriñ Moustapha mii moom comme lu mu wax Moustapha suma Moustapha la loolu la yàlla def bañ naa ko ba suma demee baati noonu la may baati Malick danaan ko kaay Saalum a ngi noonu mooy jël suma saak dugal néegam tabaarakallah amul yoon bu gàmmu ba El bii paase mu si mucc jël suma saak yóbbu reer mu indi ñëwal fii da dangam ak nangam. parce que dafa nekkoon koo xamante ni yàlla damaa boole woon ak moom ay Matar man yàlla damaa dimbali woon fu ma xas ba dem benn semaine rek ñëpp ne Saalum Saalum. léegi nag fi ma daan yalwaanee sa ci biir mujj dem ba rusatee pot di yalwaan. xam nga sama yàlla ne nan lay def damay jël pot bi jox ko Moustapha Moustapha mooy yëbbu pot bi ba si dëkk bi. jërëjëf ñu koy gërëm mooy sama maam moo jur sama yaay. tabaarakallaa meer baa ngi Amérique waaye xam naa ne depuis bi ñu jàppee date bi ba léegi nelawul ana yi am na toppatoo leen lii daf leen lii daf leen lii rek xam naa ne tey fekk gisul vidéo yi ci du dal ñu ngi koy ñaanal yàlla foofu mu nekk yàlla yàlla defal ko tawfiix bi mu demee ba léegi jooyuñ ndax yaan lay tuure bi nga xamante ni di suñu yaay ñu nekk si kër gi fi daan suñu yaay di féetoo féetoo nañu fa kon yàlla ñu ngi koy sant njabootam yëkkati alal yu am solo teg ko suñu loxo kon ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla yàlla defal ko ko defal ko njabootam yépp si daraja yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, Haji Ba Muxtaar comme li ma doon wax si sëñ Moustapha euh, man yàlla def maa boole woon ak ndaw ñi moom sa Saalix ak ku ñuy wax Abdallah rakki Mor Touré ñoom la ma yàlla boole woon man ndaw ñi rek ñoom ñoom la ñoom ñoomu boole ñoom la ma yàlla boole woon comme li mu wax sànq maa ngi koy fàttali ko ndeysaan si ndam si yàlla si aadama aadama suñuy yelwaane su toppee suma ginnaaw rek ma xam ne tooñ na du tooñ nag aadama du daan tooñ mais da lay wax dëgg léegi dañ ci amoon benn ponkal boo xamante ni dafa mën a nappaate mën a tooñ mën a duma waate mi aali soo demee sa place alaaj sekk di nga ko di ko ni nga ko fekk benn ñaar ñett rek aali wax ko aadama wax ko dëgg aali ne ko la dóor waaye su ma gisee aadama te laa xam ne am na ko ko war a dóor tabaarakallah yàlla boole woon ma ak moom boole woon ma ak moom si lu bari ñu amoon mbébét nag pour liggéey jamono jooju ma dem Bouchra di jàngi xam-xam laa mu nekk fi keroog bi ma at bi ma njëkk a def Bouchra at ma njëkk a def Bouchra kaamil gi ma njëkk a fakk fekk àllarbal la ma sama mag ji woo yàmm na ne ma ndax yëgg ne aadama dafa wàññeeku tabaarakallah keroog laa ko jóg a jot tabaarakallah ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yërëm ko xaare ko aljanna fi daw si lii lu rafet la boo demee taatu wiir nga boo demee baati kër sëriñ foo dem ñi ne aadama lu ko waral nekkoon si lu baax innama al maru xadisun baadahu kon fa kun xadisun xasanan li man waa waaw tabarakallah kenn boo fi jógee ak noo ma fi mën a jógee dañ lay waxtaanee kon fexeel ba buñ tuddee sa tur rek nit ñi xalaat tant yonent yàlla muhammad te loolu yàlla jagleel na ko aadama kon nak yàlla na yàlla na ko jigal jàmm mu nekkon sama xarit ni ma meloon ak mom ak mebet bu mu amone yalla boole ma ak Moustapha Cissé mi ñukoy agal ta inshallah rabbi dana gina dem. kon nak ñi ngi sant ñep di gërëm ñep comme ni ko waxee bu ñu bu ñu limé dañuy jum way Mouhamed jeng ma ngi jël nuyu bi diko tek sa loxo nga tegal mako ci loxo pap malik boy mi president xamna ne sonu nga lol te lepp li nga def lepp lu ñu def. maag yow ak waa daayira bi ak waa daara bi moom nga ñu defal kon yàlla yàlla fay la yiw yal na yàlla sàmm la te aar la yal na yàlla yokk la ba nga ko yëg si zahir ak si baatin si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom su ma ko xoolee rek aadama lay gis ndax bi may aadama ak moom rek laa ko xamee woon boobu jamono boobu booy booy bi daanaka kii la woon suma <laughs> waaye la waaye kii la woon tabaaraka la moom moo di jëng yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen soxna ustaas yëpp ñu ngi leen di sant teg ko ci loxo soxna xadi yëpp sant ñëpp gërëm ñëpp waa yola yola yooyu ngeen di gis muy boobi naam bet be daawoo yàlla dafa def ñun ñu sopp armation Tivaouane 2007 leen doon def taekwondo biñ ci période delluwaat Tivaouane gis fa armation bu gën a taekwondo boobi naam bet fe daawoo ñu join si di si liggéey 2018 laa njëkk am suma benn certificat boo xamante ni maa bara cité bam tabaarakallah ki leen jiite nag doon bàyyi soow bi nga xamante ni ko am yit ba léegi den fanaan si gàmmu wér ngar bi ñëw bi ñëwee dama leen balal seen néeg lalal leen seen matelas pour ñu tëdd ñu ne duñ tëdd lu ñu bëgg def rek mooy na bis bi rafet bis bi jekk ñi nekk si waañ bi ñii nekk si tabaarakallah tant bi te incha allah rabbi saali boobu naam bet bédaawoo dinañu fexe si suñu ndigali kilifa bi mi Serigne Cheikh Tidiane Diouf ñu fexe am ko kër Serigne ndax jamono ji ñu toll armation lu am solo la si réew mi kon su ba defee tabaarakallaa dinañ gërëm neen leen sant nañ leen ñi ngi leen di ñaanal yàlla seen saal yi yàlla na yàlla defal leen si tawféex yàlla dafa leen si sutura ñu ngi sant bu baax soxna Fanta Cissé suma xulóowaale bi ak soxna Aïssa ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak ki nga xamante ni tabaarakallah moo di euh, soxna Ndey ak Xadi doomi Bekaay yi nga xamante ni tabaarakallah ñi ngi jóge ko ba Kóolóoli ak mboolem ñu ngi fi nekk di nuyu baax Abdou Sow Abdou Abdou Diouf jóge ba Dakar ndax bis baa ko fi ñëw Mouhamed Baati Elek tabaarakallah lu ñu wax si moom rek mooy lu xaj Pape Makhtar wax moom la Moustapha wax yal na yàlla jottal liggéeyam façon ak jabootam yëpp soxnaam soxna Xadi yëpp fi leen ne woon wallahi bu ñu doon sant fii ba bët set du doy waaye mboolem kuy dégg rajo yi ak mboolem porono tant yi képp ku si def ñaan ku ñëw ku ñëwul ku yónnee ku yónneewul sant neen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ngi ñaanal yàlla yàlla ñëpp tawféex ak sutura Seyna Omar yal na yàlla fay la yiw yal yàlla taxawu la sëñ Mor al Amin yal yàlla taxawu ñu te jàppale ñu oustaz maa ngi jégal bu baax nuyu yaayu daara yéeg ñoom ami ñoom jaaraak wax dëgg yàlla ñëw gërëm nañu leen sant nañu leen ñi ngi jéggal ñu nekk sama ginnaaw ku ma sa gisul sant leen ñëpp gërëm nañ ñëpp wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kanaa ñu jox kaddu gi rek Baye Ousseynou Cissé incha allah mu jotil ay kàddoom mu pare jox khalifa bi mu ñaanal jotaay bi allah ah, ñu ngi leen gërëm bu baaxa baax man ngeen ndaw ndax président bu yónnee ndaw bu toogee toogaayu président la toog euh, ñu ngi leen a sant da leen gërëm bu baax a baax di gërëm oustaz Saloum da ko nuyu da ko jox wàccu waayam nuyu xalifa bi alaaji Mouhamadou Kabir tabaarakallah suma xarit ak suma doom yi bàjjan da nuyu mustapha Cissé macha allah di xam-xam bu rafet bi nga xam ne joxe na ko fi euh, de sant nag waa daara ji ci tëri bu rafet bi nga xam ne tëri nañ ko xam naa kàddu yi sax duñu mën a bari lool ndax jotaay bi yàgg na waaye lépp jàmm la euh, soxna Dieynaba bi tey ñu ngi lay gërëm ci sa taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nga ko yooyu itam wax dëgg yàlla def nga sa wàll ñu ngi laay gërëm bu baax a baax alkaali Omar alkaali Paloum ñu ngi koy gërëm bu baax a baax euh, suñu société bi nag société baat yi euh, ku ne xam na ne man su may wax dinaa leen wax ci turu société yi ndax ñoom itam fu ma toog rek ñoom laa fa toogal muy baati société ak Opo Saloum société ndax baati société ñu bari teew nañ fi gise nañ ak man fu euh, gis naa leen ne wax digg yàlla ayusi nañ woote bi nga xam ne moom la ñu oose fii ci kër sëriñ euh, di gërëm nag bu baax a baax Omar Diouf ni ko Moustapha waxee rek mburook soow leeñ euh, tabaarakallaahu seen ànd bi rafet na yan yàlla gën a yàggal seen ànd euh, jàng mi tam ma bëgg a wax nag mooy ci kër sëriñ mooy affaire yi daara gi muy daaraay Omar Diouf muy daaraay Oustaz Saloum ñun ñoo moom dëkk bi ñoo moom daara yi nañ suñ xel na nekk ci daara yi te nu ñu bàyyi xel daara yi te ñuy dimbale waa daara yi ki lépp xalaat ak lépp loo xam ne suñ ko defee daara yi dem ca kanam ñu def ci suñ wàll ndax suñ ko defee daara gi dana dem suñ ko defee daara gi dana dem kon nga def ci am ci tiyaabu moo ci ëpp solo Eh, ñu ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñoo taxawee mbir mi caméraman yi ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ndax ñoom itam ñoo di siiwal ñoo de lépp loo xam ne xew na ki jamono ñoom waa caméraman bi ñoom ñoo koy defal ñoo ko defee ba mu rafet ba nit ñi mën koy dégg ñoom itam ñu ngi leen a sant di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet a li ko oustaz Saloum waxee waaye ñi nga xam ne ay yeloo lañ sol nii ñoom itam wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na lool ñu ngi gërëm bu baax a baax euh, nga xam ne ñoo beeku ci gox yi Serekunda ak fu nekk ñoo fi ñëpp oustaz Saloum Cissé nee na mu ngi leen a gërëm wax dëgg yàlla mu ngi sant ci seen taxawaay bu ñoo nekkoon ci waañi ñoom itam nga xam ne ñi ngi def yëfi tuuri kunda ak mbéyeen kundaa yi wax dëgg yàlla na ñu leen a gërëm ñu ñëpp di leen sant xam naa jotaay yàgg na te wax dëgg yàlla ni ñi sonn nañ waaye nag lépp jàmm la ak ak tiyaaba ju mat sëkk su ko defee ñu emale kàddu bi fii rek ñu jox xalifa bi alaaji Mamadou Kabir su ko defee mu dal ne ñaan waaye nag foog ma tànn ci eh, ci nuyoo bi suma ñoo xam ne dañ ma jàpp bàyyi ci réew ma nga xam ne ñoom itam ñu ngi àndoon man ci sumay programme ndax ku ne xam ne ne maa ngi doon muur maa ngi doon jël suma doom a doon jël fan yi moom itam wax dëgg yàlla ak li nga xam ne mooy daa mooy euh, tërimi euh, suma doom yi nga xam ne ñoo sant seen nekk ci réew ma demee ni kalaaj yaab seen xëri seen ñoom faatu seen ñoom itam ñu ngi ànd ñun ci programme bi ñoom itam ñu leen a gërëm bu baax da ñaanal wax dëgg yàlla gërëm nañ sant nañ bu baax da leen ñaanal yal na yàlla def ñu tewee ko déwén gën gaara ko fi tewee asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu kon mbokk jullit yi xalifa bi Mouhamadul Kabir nee mu ngi wax mu ngi nuyu waa jataay bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah xalifa bi Mouhamadul Kabir nee na mu ngi nuyu mbooloo mi nga xam ne moo teew fii yëpp. di jiital ci nuyoo bi al oustaz Saloum Cissé. di ko ndokkel ci programme bi. ñaan yàlla yàlla na ko yàgg na ko yàgg a taxawee. hukum te képp kum jàngal rek yal na barke bijaahi sayyidil wujub Pa maktar khalifa bi neena mu ngi lay nuyu bu baax a di am mbégte ak kontante atam ba Pambay de mu atam ba Pambay doon de yónnee duudu baati ndar. fekk ñëpp miinoon Pambay Donde. fekk ñëpp miinoon Pambay Donde. bañ ne Pambay Donde ñëwut. bañ ne ñëwul. ñëpp gëlëm. ñëpp waaye ba du commencé wéy tànt bi. waaye ba du commencé wéy tànt bi. ñëpp fàtte Pambay Donde. loolu xew na si yow tey. bañ na Pape ñëwul. bañ na Pape Malick ñëwul. amoon nañ tayal. waaye fa tabaarakallaahu. lu Pape waroon a taxawee yëpp. lu Pape Malick waroon taxawee yëpp. taxawee nga ko. yal na yàlla barkeel say. mbir. bi jaay Seydil Wujub. ñu ngi nuyu Serigne Moustapha. ñu ngi nuyu tey nag moom xam naa ne waxtaanam bi. tey nag xam naa ne waxtaanam bi. am na boor boo xam ne Ousseynou kontaan am na boor boo xam ne papa Ousseynou kontaan na si. waaw am na boor boo xam ne dal na ko it nag. am na boor boo xam ne itam. ñib si nag. daal di tukki ñib si. ba mu ñëwee taxaw ci taxaw si digg kër gi. mel ni dafay fàtte fàttali ko aaye. mel ni dafay fàtte fàttali ko aaye. ndeke seet bi la ñetteel bëgg a àndal. ndekete yoo ñetteel bi la bëgg a àndal. ku nekk ñëw téye saag bi na ko nijaay maa aaye. nekk ñëw téye saag bi na ko nijaay maa aaye. mu ne leen taxaw leen. mu ne leen taxaw leen. yéen kenn ku nekk. yéen kenn ku nek na jàng ben aya alquran. na jàng benn aaya alquran. boo xam ne na lim taxawé ci kër gi. boo xam ne na lam taxawé ci kër gi. aaw bi ya waxal. aaw bi ya waxal. inna awal inna awalal bayti wudi'a nas allazi bi bakkata. inna awalal bayti wudi'a linnaasi allazi bi bakkata. ah waaw yaa njëkk yaa njëkk ci kër gi de. ah waaw mu ne ko ah waaw ñu ne ko ñaareel bi yow waxal. ñu ko ñaareel bi yow waxal. mu ne xaafizu ala salawaati wa salaatul wusta. mu ne xaafizu ala salawaati wa salaatul wusta. ah mu ne ko yow it de li nga na. Ah, mu ne ko yow it de li nga wax ànd na. ñetteel bi yow la wax. ñetteel bi yow la wax. mu ne walal aaxiratu xayrun laka mina luulaa. mu ne walal aaxiratu xayrun laka mina luulee. mu ko jëlal sa saag bi dugal sa néeg. mu ne ko yow jëlal sa bi dugal sa a ànd. fekk kooku a àndal. kon na. ñu ngi nuyu di sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp. ñu jàng fatiha salaatul fatihi. hadiyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw waaw. Serigne Moustapha nee na Kéba Coy mu ngi koy nuyu di ko sant. saa bu jógee Sénégal. bu jógee Sénégal. bu dugg Gambia. bu dugg Gambia. feeg muy ñibbiwaat. feeg muy ñibbiwaat. moo koy. service taxaw. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla. yal na yàlla barkeel yëngatoom. bi jaay Seydul Wujub. ñu jàng Fatiha. salaatul Fatihi. haddiyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yéene ci aajo yëpp. bisimilah.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 na ñëpp na amin amin yalla na yalla faj aajo yeb di jay sëriñ wu jub.